ñoo xaw a am problème ci seen biir néegu sëy est-ce que mën nga ma waxal tamit jigéen joo xamante ni dafa të pour mu am doom ban xam-xam nga ci am. waa jigéen joo xam ne dafa të mu am doom bari na ay yu ci nekk secret yu ci nekk euh, dinaa la ci euh, may benn tey jii fu mu toll boo demoon ci àll bi gis rab di gas yaa xam rab bu mu doon nga gis ko muy gas nga dem fa muy gas nga jël mbuus nga laal ko fa suuf soosu noonu nga xam ne bu mu laal suuf suuf soosu noonu dal ci mbuus ya lu ci dal lu mu tuuti tuuti tuuti tuuti tuuti ci li nga xam ne moom la di sallax muy génn jigéen bu ko jëlee ut morceau bu weex takk ko ci takk ko ci ndigam yaakaar naa ne yàlla mën na ko dimbale mu am doom beneen bi am na ci boo xam ne da jël euh, garab goo xam ne waaw bisimilah waaw loolu moom mën nañ ko see maye ci jigéen ji nga xam ne ni tey ji moo am moo am jafe-jafe pour wàllu am doom d'accord macha allah xam-xam bi leer na am na solo te ñu gis ne jigéen ñi tamit dañu am problème tey takk ma takk ma est-ce que mun nga euh, liggéey liggéey boo xamante ni jigéen bu bëgg jëkkër dina ko yomb trop sa jëflante ak moom wala góor goo xamante ni bëgg na jabar su la gisee dana ko yomb trop pour mu am jabar loolu dañ ci liggéey am déet. waaw alhamdulilah ñi ngi si sant yàlla dañ ci ñaanlante ak jaamu yàlla yi te jigéen ñi léegi takk ma takk ma ji góor gu si nekk am na jigéen ju la suñu borom booleel. soxna boo gisee sëyu tas yi bëri léegi soxna bala nga ko takk da ngay dem def si listixaar ndax jigéen a góor jigéen gu nekk a góor gu nekk seen nga xool ki nga xam ne moom sa température sa température yaram àndal nga ànd ak jigéen jooju ndax jabar dañ koy xool soxna dañ koy xool soxna du da ngay dem rek jigéen ji neex na ma rafet na rek ma dugg ci jigéen ñi boo gisee léegi ñuy am yoon yi ñu war mën a jaar pour am bërëm kër gu baax jaaratuñ fa góor ñi yoon ñu war a jaar pour am soxna yu baax jaaratuñ fa ndax soxna ki nga xam tey ji tey moo la war a sampal sa kër moo la waral juróon jabar goo xam ne bu ëllëgee ñoom ñoo la nar a dimbale soxna suus war nga ko tànn soxna si nga xam ne dafa bëgg jëkkër te bëgg a sëy képp ku mënta gis bala mu cee def dara ne dem def si li si xaar xool ba xam ki mu bëgg borom këram la wala du borom këram bu mu jiital nag intérêt ndax yàlla moo yor lépp yàlla moom gémmiñ gum xar moom moo ko jox mu lekk moo tax mu wax ma min daabatin fi ladi illa àlallahi rusqaha gémmiñ guma xar maa ko jox si lekk nit ñi ne gëmatuñ loolu léegi bu demee ba gis ne mën a ndax mun nga def pour ñu mën a sëy waaw war naa mën a nekk war nañoo mën a def pour war nañoo mën a def pour ñu mën a sëy ñoom ñaar bu fekkee ne seeni raban ànd na war nañoo mën a def ñu boole leen ñu sëy jigéen di bëgg jëkkër ba leen bëgg na jëkkër buñ ñëwee am na yoo xam ne buñ ko jëlee ci àll yi boole ko alxuraan ji buñ la ko joxee nga sangoo ko te teg ko ci yoon li nga bëgg di ko am boo gisee ma ne sangoo ko teg ko ci yoon ñaan dafa xaw a jafe lu tax ñaan xaw a jafe yenn saa yi nga jigéen ñi ko jugee fu sori ñëw ne ma dama bëgg nga ñaanal ma benn jigéen def na ma ko fanee passé jógee Dakar ñëw fekk ma may dem Dakar ñu juyoo ci yoon bi bu ñëwee sama soxna yi defal ko mu reer ma ñu defal ko mu sang mu fekk ma Dakar ba mu fekkee Dakar ñu waxtaan mu ne ma sëñ bi damaa bëgg ñu waxtaan man waaw mu ne ma amul sëriñ amul sëriñ bu ma taxawut ci Sénégal pour ñaan lu ci moom waaye lu ma ñaan moom si gis dara ma ko ci yow la moom ko ci yow ndaw ci mbir mi jaaxal ko trop mu ne ma nu mu ci man mu ne ko ñaan dafa ànd ak set bu fekkee dañ laa ñaanal la pare nga dem def la la neex boo waxee ni nga am ñaan da ngay nax sa bopp kenn ku ci boo gisee ma wax loolu kenn ku si nekk bala ñoo walaa a ñaanal yow yaay ñaanal sa bopp ba pare ñu dog laa mën a ñaanal noo ñaanal sa bopp nga maandu maandu moom faw nga set sa diggante ak góor ñi ku dul jaamu yàlla boo ko bëggee ñaanal du yomb kuy wor boo ko bëggee ñaanal du yomb waaye jaamu yàlla bi nga xam ne moom wóolu na boppam ci côté yooyu bu ñu jëflante moom ci diir bu gàtt mën naa gis njëriñ ci li ñu jëflante moom ku mën a moytu sobe ku mën a moytu koo xam ne chaque jour li nga chaque jour li nga xam ne war la nga ko suñu borom yaa ngi koy def ki nga xam ne te yaa ngi woytu sa diggante sa sa morom nga séq ñoom loo xam ne warutoo ciy dugg ñett yooyu ku ko jëfandikoo rek bu ma la waxee mën naa laa ñaanal wax ma dëgg ndax ñun yàlla la ñuy ñaan ñaanuñu kenn ku dul suñu borom te ñett yooyu suñu borom dafa wax ne boo ñëwee ñu garanté leen buñ la lii dina loolu maa ko wax ndax am na benn jigéen bu nekk bitim réew lu mel ni dal na ma ak sama diggante moom jox li ma koy jox ne ko boo ko jëfandikoo ba mu jeex li ma la wax di ko gis mu jëfandikoo ba mu jeex moo ma ne li ma waxoon gisoo ko mu ne ko ah mu ne waaw ko waaw may ma ba suba nga woo ma suba ko ba ma wooyee mu ne ko li ma la waxoon defoo ko ma ma ne ko mooy nga yàlla bi sàngam mooy yàlla bi sàngam ndaw si coupé téléphone am dem ci ki ma boolee moom ne ko yow ki ma ndax nit la mu ne ko lu tax nga ko waaye nanguwul koo leeralal mu waar ma sànni daf may sànni jox ma beneen tur ko man de gisuma tur tur nangam laa gis mu toogaa ba mu yàgg ma ne maa ngi jéggul nangam expliqué mu ne ko man nga def mu ne ma li ma li nga ma defaroon laa bëgg nga la ma ko waxoon ba mu jëfandikoo ko ba mu ko defee yàlla def na la mu doon sàkk muy borom kër yàlla may na ko ko la mu doon sàkk muy kayit yàlla may na ko ko kon nag nit ki bala nga ko mën a ñaanal moom moo war a xool ba boppam ba pare sell set di jaamu yàlla nga doog ko mën a ñaanal waaye képp koo xam ne saxoo nga ak yooyu boo ñëwee bu ñu la ñaanalee nga am jafe-jafe si sa wàllu soxna bu fekkee rab la dinañ ko dindi pour nga am soxna muy góor muy jigéen te ñaar yooyu mooy téye nit àndandoo ñaar yooyu mooy téye nit di nga gis jigéen du trop du gis ku ne ko naa la di ngi jigéen daar trop du xam fan lay jaar ba am borom kër am na góor ñoo xam ne ñu ngi dox ci mbedd mi bëgg soxna mënuñ ko am te xoola jigéen ñi duñ bëri mm-hmm. waaye mënuñ ko am lu ko waral dañu am gàllankoor seen yaram moo tax mënuñoo am loolu muy góor muy jigéen waaye nag yii ñu yii ñuy wax yii ñu wax nii ku ko mën a saxo boo ñëwee buñ la ñaanalee di nga am li nga bëgg si kàttanu yàlla suñu borom muy borom kër muy soxna si kàttanu yàlla. d' accord mbokk yi ñu fàttali leen ba léegi rek euh, ñu ngi toog ak ki nga xamante ni mu ngi tudd euh, Serigne Adama Cissé nag nekk fii si diwaanu Karang di borom xam-xam bu mag si wàllum diine ak xam-xam tey euh, yaa xaa ngeen ne lu mu fi wax tamit nekk lu nga xamante ni suñ ko jëfandikoo dana nekk lu ñu jëriñ ba léegi nag bàyyi guñ ko dañuy continuer ba léegi si laaj ak tontu Serigne Adama Cissé ñu gis ne xale yi dañuy bëri lu ñu yëngatu si wàllum jaay ndax am nga mbay rek waaw am nañ bayra njaay yu safa safa safa safa saf yoo xam ne boo ko boolantee comme yi ci àll bi garab yi ci àll bi nga jël xob am na ay xob la yoo xam ne da nga koy mélangé ay ay yoo xam ne da koy jël jaxase ko bind ko comme euh, boo xoolee bayra njaay doomu adama njaay boo bëggee jaay mu jar yooyu sa jëmu bopp na nga saf nit ñi boo safee nit ñi da nga gis nit ki léegi moo romb la rek xool la rek kontaan ci yow jënd te bëgguloon a jënd kon Bayra Ndiaye am nañ ci am solo yoo xam ne képp kuy jaay am na yoo xam ne sax si weewu fas lañ koy liggéey weewu fas mo place bi nga xam ne da nga fa bëgg mbooloo ma di fi ñëw toujours toujours weewu fas weewu kanam ba am na yoo xam ne loolu lañ ciy liggéey am na yoo xam ne boo demee ci àll bi ne am na garab gu ñuy wax wosi sóor am na garab gu ñuy wax timin timin am na garab yu ñuy wax olom am na garab gu ñuy wax new am na garab yu ñuy wax si yu yëpp day dox si Bayra Ndiaye garab yi boo ko jëlee mélange seen xob boolante ko yu ñu ko war a booleel nga jëfandikoo ko nu mu waree te sàmmoon teg ak yi lay teg boo ko defee yaakaar naa ne di nga sant yàlla ndax waa Saalum mii rek la ñuy fekk ci boo demee Kastoor ñoo fa nekk fees fa dell ba bakk démb laa jógee Dakar bu ma demee seen seen place yi dañ maa teral ba ma kontaan bu ma demee seen lu nekk lañ may jox ndax fii lañ nekkoon léegi seen wéjur ñu dëkk ci àll bi nii ñoo fi leen fi ñëwal ñu defaral leen ay mbir ñu dem ñu nga yor seen place place ya macha allah ba ñu boole ñoog seen yeneen i morom ñuy jëflante ci côté ba ci wàllu njaay moo tax dañ ciy defar ay bagage yoo xam ne ku yàlla dimbale nga jëfandikoo ko rek muy ay jaaro ak lu mata doon di nga gis njëriñ si kàttanu yàlla suñu borom gis avancement ci li ngay liggéey ba soobee yàlla. Euh, jërëjëf euh, Serigne Adama Cissé kenn amul sikki sàkk ne borom xam-xam bu mànga ñun ñi xam nañ ci dara bu baax a baax kon nag dañu am mbégte bu baax toog yow ba léegi rek Serigne Adama Cissé ñu gis ne yi dañoo bëri ay diplôme yoo xam ne ñu ngi nelaw est-ce que mën nga yee diplôme yooyu. waa diplôme yooyu noonu mën nañ ko yee bu baax a baax a baax ndax euh, yàlla suñu borom ku baax la ku yaatu la ku bëgg jaamam la te loolu nga wax noonu dafa bëri léegi trop trop trop trop si jamono juñ toll nii ba dafa am sama benn maire boo xam ne sa waxtaan nañ si toonante si maree ko ci li ma ko si doon mooy dafa moom yàlla ko si di ñeenti doomi jigéen kese ñuy jàng rek heure bu ma demee këram ñuy waxtaan ma ne ko maire ma ne ko ma ko mayal sa doomi ñu sëy ñi nga bàyyi fi danga leen di tardé rek mën ma ñi dañuy jàng fekk pare wuñ leen du ma leen maye. far yàlla daf ñu jàng pare ñaa ñi dem France dafa stage ñaa ñi dem Maroc dafa stage ñu def seen stage ñëwaat toog suñu diplôme tëdd chaque jour bu ma demee rek maire bi di ma wax seeni wax ba benn jour ma ne la doon seetaan rek lu ma la doon wax laa ne ko waaye dinaa la dinaa la si dimbale dinaa la yàlla dimbale ñu ma jëflante seeg moom am yu ma ko joxoon dem këram toog ñu ma koy jox wax ak ñoom teg leen si sart yi ba leen war a teg jox leen ya ma leen jox bañ ko jëfandikoo yàlla suturaal nañu kenn ki mi ngi aéroport bu Sénégal di liggéey kenn ki benn société bu mag moo ko jël manga nga Dakar société bu siiw bu ñëpp xam moo ko jël ma nga Dakar ñoom ñëpp macha allah fu mu ñoom ñoo yor seen yaay ñu ngi suturlaawoo euh, euh, ñu ngi dimbali seen yaay bu baax te ay diplôme lañ yoroon yoo xam ne ñu ngi nelaw diplôme yooyu noonu mën nañ cee yee yu bëree bëri bëri si kàttanu yàlla suñu borom si kaw ki nga xam ne moom lañ koy defal ñu waxtaan bu juboo si kaw sart yi nga xam ne moom lañ ko tegal mu nangul ñu ko bu ko defee diplôme yooyu tëdd noonu dinañ ko yee ba lim ba li mu bëgg dina ko am si kàttanu yàlla suñu borom si diir bu dul yàgg dara dara si kàttanu yàlla. Euh, jërëjëf euh, sëriñ Adama Cissé euh, xam-xam bi leer na bu ñu déggee sa biir wax mel ni yow su pour nga jëflante ak nit ki foo nga teg ko sart yi nga xamante ni moom ngay tegaate waa sart boo gisee ma koy wax benn jigéen jigéen ne gàmmi ñoo ñu waxaale benn liggéey boo xam ne un million la ma waroon a fay un la ma waroon a fay mu ñëw fii indi avance. di génnee xaalis ba ma ne ko taxawal mu taxaw ma ne ko kuy mooy yàlla mënu ma koo ñaanal. ku dul julli mënu ma ko ñaanal kuy war mënu ma ko ñaanal mu dugalaat xaalis mu mënul tekk di ma déglu dugalaat xaalis bi si posetam ne ma dinaa fi ñëwaat ba léegi gisuma ko boo gisee ñuy def loolu jamono léegi dafa naqari te yow boo nekkee daw di liggéey dangay ngay fexe li ngay liggéey nga koy teg ci yoon pour boo bëggee dimbalante ak nit ñi ndax bu fekkee nit ki day ñëw nga jël xaalisam rek lekk ko defal ko mu dem boo liggéey dina toog xas la te xas yooyu laay bañ moo tax ku ñëw dinaa la wa li nga xam ne moom laay bañ topp ma xaalis bi rek dinaa la wax li may bañ lii bëgguma ko lii bëgguma ko lii bëgguma ko lii boo ko defee jàppal ne yaa yàqal sa bopp lii boo ko defee jàppal ne yaa yàqal sa bopp lii boo ko defee jàppal ne yaa yàqal sa bopp defee nga xam ne yaa yàqal sa bopp boo ko deful nag li ma la wax di nga ko gis moo tax boo ñëwee bala ma laa defal dara dinaa la teg charte yooyu noonu ku fekkee ne nit ki fekkee ne nga wax ne yow yàlla ngay ñaan ku setul noo koy ñaanalee yàlla ku dul jaamu yàlla nga nga taxaw naan yàlla euh, kii laa bëgg nga defaral ma kii laa bëgg nga may nga may ko lii nga may ko lii te kooku du jaamu yàlla yàlla yow mi koy ñaanalee wax ne yow yaa ko yàpp lu tax mu ne yaa ko yàpp kii sant naa ko julli mënu ma ko defal sant naa ko woor mënu ma ko defal sant naa ko na ma ko defal nga naa ko may li mu bëgg du ma ko def yàlla moo ne du ma ko def lu tax ma koy may léegi nag kooku bu lekk boo mooy taxaw na li nga ma waxoon gisuma ko wala defaloo ma li bëgg kon jàmm yàlla yi nga xam ñoom la ñuy jëflanteeg bu ñu naxanteeg ñoom nañ leen di wax dëgg alxuraan fa set kon boo koy laal te setoo doo jëriñu boo koy laal te doo jàmm yàlla doo jëriñu boo koy laal ba pare ko boolee ko siqal war ko doo jëriñu loolu nañu wax dëgg moo tax ku ñu jëflante dina tegante yow ndax suñu bopp la ñuy dimbale dimbale la yow dañuy waxtaanee yow kàddu yoo xam ne boo ko ci teg boo ci tegoo billaahi di nga gis njëriñ waaye faaw ñu teg la sart yi boo ko nangu ñu liggéeyoo boo ko nangu ñu bàyyi la dem. suñu la déggee yow lépp looy jëflanteeg doomu aadama yi dafa dëppoo si diine ak euh, jamono rawatina tamit xam bu nga xamante ni moom ngay woote euh, euh, sëriñ Adama Cissé du ma la bàyyi léegi dinaa wéyal di laaj samay laaj sëriñ Adama Cissé maanaam jëflante gu mu jëflante Sénégal la yem wala mu ngi bitim réew. alhamdulilah Sénégal sax yéex na ñoo xam lan laay liggéey ñu bëri bu ñu génnee bu ma génnee si mbedd mi dañ may laaj looy liggéey si kër yi ma dendal ñoo xam ba xamee ne lii laay liggéey yàggut lu waral loolu man jëflante naag ñu nekk bitim réew te jëflante ma ku nekk Sénégal ñu nekk bitim réew ñu ma di boole waa Sénégal yi ba Sénégal xam ma man waa bitim liggéey naag nekk naa Dakar liggéey waa bitim réew ñu bëri xamuñu woon si lan laa seq ak ñoom lu bëree bëri bëri bëri si wàllu liggéey si wàllu këyit si wàllu ñaan yàlla si palaasu liggéeyukaay ñi nga xam ne tamit am na ci ña fa nekk ñoo xam ne ay équipe la yoo xam ne ay équipe football lañ am na ñoo xam ne yi dañuy jokkoo ak ñoom ñu ci jëflante ñoom kon suñu liggéey boo gisee ñu bëri bu ñu laaj dañuy toog du mu yàgg sax dañuy toog naan yow foo jëlee xaalis yow dañuy gis gisuñu li gisuñu lii ñu ngi sant yàlla si côté boobu ñun bitim réew la ñuy gën a jëflanteel Sénégal Sénégal ñu bëri xamuñu ñu sax dañuy dégg rek waaye bitim réew moom yaakaar naa ne bëri na réew yoo xam ne amul réew bu bu xam ne yaakaar naa ne ci bitim réew ñu dem fa te wuñ muy Amérique muy Canada muy France muy Angleterre muy Allemagne muy Suisse muy Dubaï muy fu nekk Chine ba Chine ñëpp yàlla boole nañu faak ñoo xam ne ñu ngi jëflante ñoom ba tey jii sax am na ñoo xam ne jekkoon ak ñoom kon ñun suñu liggéey dafa ëmb àdduna àdduna wërngal këpp la law ndax doomu aadama Njaay moom boo nekkee fenn di liggéey loo xam ne nii. yàlla ngi ànd fépp fu waay mën a nekk ci àdduna dina la xam fépp fu waay mën a nekk ci àdduna rek dina la xam ba barki démb am na ñoo xam ne Guinée lañ jógee ñëw ba fii def nañ ci kër gi fukki fa weer ak ne bu fekkante nañ feeg ñoo xam ne ñeneen ñoo xam Dakar lañ jógee woon ci kër lañ nekkoon sant nañ yàlla ci ñoom ba ñooñ dellu nañ yàlla lañ bëgg li ñu doon sàkku si leen bëggoon ñu defal leen ko ba dellu nañ seen dëkk yi euh, di ànd dem ak sant yàlla bu baax a baax baax moo tax suñu liggéey mu fii jërëjëf euh, sëriñ Adama Cissé duma la bàyyi ba léegi rek di wéyli samay laaj ak yow bëggoon naa nga leeral ma jëflante ba nga jëflante ay nit euh, si nit ñi ñuul la yem wala nit ñi weex nga jëflanteet. ñu ñu weex ak nit ñi ñuul ñëpp am na dama leen nettali benn affaire bu doy waar dafa am benn tubaab bu ñu ma mos booleel muy wootee man di làkk ak man anglais di làkk man espagnol xaw ma lu may dégg ma daw dem marché Grand Yoff di ut ku mën a dégg anglais ku ma mën a waxal ak moom fekk boobu dañ ma moom ma xoolaloon ko wax ci am tubaab dafa bëri ñoo xam ne si jafe-jafe wàllu góor seen lépp foofu la bu ma ko xoolalee wax lu ma koy wax mbir mi jaaxal ko trop léegi nag mu bu ma bëgg a wax ak man man moom déggul olof ba dama doon wër marché bi pour ñoo xam ne dinañ ma mën a dimbale ci pour mu mën a wax ak moom ba yàlla def ki ma boole woon ak moom tubaab boobu ci jëm boppam jox na ko xaalis ak ay papier invitation yoo xam ne ndax dafa bëggoon a ñëw Sénégal far jabaram jógee Sénégal dem France léegi moom mënatul ñëw ndax moo des si kër ga mu jox euh, góor googu noonu kayit yi ak xaalis ne ko boo demee ne si réglé rek la kayitam yëpp bu paree dinaa ko envoyé lu mu mu ñëw góor googu noonu xam nga ñuy wax Sénégal rek léegi kooku noonu ñëw le six boobu duma ko fàtte mu kooku ñëw ànd ak war ko métti ñëw jël xaalis bi di gàttuma ko bu fi may wax yow ni di gàttuma ko ba mat ñaari at si laa ko dugg di gàtt ndax jafe-jafe mu woo ma di am jafe-jafe yu mooy wax ma ne ko jafe-jafe yëpp yaa ko teg sa bopp ndax fekkoon dafa ñëwoon sax euh, lekk xaalis ba expliqué expliqué ma mën naa ko comprendre waaye tubaabu boobu lu mat weer yoo xam ne mu may woo mënumaa wax ak moom mënul wax man mun naa la ci jox firnde boobu am na beneen jigéen bu nekk Amérique boo xam dafa am loo xam ne magam bu jigéen moo fi ñëwoon ma wax ko mu toog lu ma ay weer kere ba magam kere ba may woo dafa fekk maa ngi dugg xalaw ba génn nii dama génn rek dama teg sama tànk ci buntu bi rek sama téléphone sonné mu man la diw ma ne ko ah mu ne ma sama mag bu jigéen fu ma sonné nga wax lii lu jafe-jafe yooyu dafa taxaw sama kanam fu mu toll nii moom laa bëgg ñu saafara ko kooku sama xarit la sama jigéen la lu nekk la may defal ba fan yi passé rek yónnee ma xaalis bu bëri mun naa la jox firndeel bopp équipe bu mel ni Paris yàlla boole nañoo ak ñoom seen dirigeants yu bëri a ba ci équipe bi ñu ngi jëflante ñoom ci loolu loolu nekkul sax ay yoo xam ne war a wax la waaye dinaa leen ko may ñu ngi jëflante yoo ci yooyu ñu bëri nag dañuy gis Adama Cissé nag di dem xam nga man comme bu ma ci mbedd mi rek man taalibe laa yëre yu oyof xamuñ kan mooy Adama Cissé waaye nag euh, lii daal ñu ngi koy jëflante jaamu yàlla bu baax a baax a baax te sutura soosu na yokk d' accord euh, su ma la déggee sa biir wax euh, ñi ngay jëflanteeg yemul si Sénégal rek yaa ngi jëflanteeg ay nit ñi nga xamante ni ñu ngi bitim réew comme ni nga ko waxee sànq rawatina ay équipe yoo xamante ni ñoo fa nekk ak doomi Sénégal yu fa nekk bëggoon naa nga leeral ma tamit gis nañ ne doomi Sénégal yi nekk bitim réew bëri na lool ñii amuñ kayit amuñu xëy ndax mun nga def jooni jooni rek nga liggéeyal ñoo ñu am kayit koo jëflanteet. waa xam nga jooni jooni bi nga am kayit yow mu ñuy jëflanteel na nga tegu si sart yi nga xam ne te ji moom lañu lay teg sart yooyu noonu boo boo sart yooyu noonu boo ci tegoo ñu teg la ca nga tegu ca dina la yónnee loo sangoo waaye lu ci ëpp ci kurus lañ koy liggéey te lu ci buñ ko liggéey si kurus yaakaar naa ne ci diir bu gàtt gàtt gàtt gàtt li ngay sàkku noonu di nga ko am ci lu gàtt gàtt gàtt gàtt mu ñu tegee fi nga war tegoo ñu jox la li ñu la jox ne la jëfandikoo ko ci nga sa def ko sa yaram pour ubbeeku lu si des ñu jël suñu kurus taal suñuy cuuraay laal suñuy parfon yoo xam ne ah méngoog naak yi ñu bëgg a liggéey ñu ñaan ci yàlla buñ ci ñaanee yàlla yàlla dinañu si dimbali ci lu bëree bëri bëri lu bëri ndax mun naa laa wax ne Saalum laa dëkk ñu may jëflante yëpp Saalum lañ dëkk muy bitim réew moodu moodu yi damay dem Louga damay dem tuuba damay dem Dakar te te ñoo ñëpp ay moodu moodu ñoo moom fa yóbbu ba ci màggal gi passé benn waaye daf maa woon ma ndax bëgg naa màggal yi ma ne ko waa bëgg ma dinaa la yónnee paas nga dem boo demee na nga dal suñ na nga suñu kër am na soo benn wërale bu fa nekk boo xam ne pharmacie la fa yor mu ne ma si ndax sëñ bi doo bàyyi ma yéen la sama oto bi rek nga mën a ñëw ma ko man du ma a ñëw du ma a du ma mën a màggal si ndax booy dem kenn ku si nekk da lay soxla bëgg nga dal si kër ndax kóllëre gu yàgg ngeen séq ak li ngeen jëflante ci wàllu kayit ak li ngeen jëflante ci wàllu ñaan moom nitu yi mu amoon mu jógee Touba ba fii sama biir kër gi jox la ma benn téere xam-xam boo xam ne sax moo ko fasee kóllëre sama diggante ak moom te ba mu ñëwee la ma ko defante ba mu demee kontaan na ci ba chaque jour daf may nemmeeku chaque jour day bëgg ma dem Touba pour ñuy waxtaan pour muy mën di bég ci li nga xam ne moom lañu ñu jëflante bu ci am na keneen koo xam ne mu ngi dem Banjul mu ngi dem Banjul tournée gut Touba dëkk bu tournée dina fi jaar kon dañuy jëflante ak jaamu yàlla yu nekk bitim réew jaamu yàlla yu nekk Sénégal ak fu nekk dañuy jëflante ñoom ci wàllu këyit dañuy jëflante ak ñoom ci ki nga xam dañ koo téye maam daal dafa def euh, toox yi doon ñu téye ko dinañ ci ñaan yàlla pour yàlla dimbale ko mu am bunt bu mu mën a jaar pour fañ ko téye leen mu jógee fa loolu tamit dañ koy loolu tamit dañ ciy yëngatu ki nga xam tamit dafaa dem mbir mi dëgër ci moom trop mënul fexe ba am lu jàpp yàlla tamit yenn saa yi ñuy dimbale ñuy jëflante si ba yàlla dimbale ñu loolu muy sàkk mu am ko am na si koo xam ne boo demee sama néeg léegi léegi lañ ko indi kees boo xam ne pomme lañ ko def ak banaana ba mu fees bu ñu paree sax leen si jox ngeen xewlu ni ku ko fi indi ma nga bitim yow ma nga ma nga Italie nit la ko jox ne ko boo demee joxal ma siyaare la ma ko ko guru gu bëri mi ngi fii si nekk bu pare naa leen ci dinaa jox ngeen xewlu tur leen yëpp sant yàlla te Kaarang fii la nekkoon ku ma lay wax noonu Kaarang fii la nekkoon yoroon Jakarta di dawal. d'accord jërëjëf sëriñ Adama Cissé suñu émission mu ngi euh, jëm si euh, jeexandik ba bëggoon nañu bala ñuy euh, tàggatoo ak yow nga wax ñu dégg naa si wéw boy ñuy wax ne sëriñ Adama Cissé jëflandiwul kese ak doomu aadama yi day jëflandi sax ak jinne yi am na wala amut. waaw yooyu dafa am samay papa yu ma koy toojee samay papa yoo xam ne day day ñëw si kër gi toujours bu ñu waxee ba ma toogee ba mu yàgg ma sa jabar jinne ji ñëwati na de li ñu wax noonu boo xoolee tey jii liggéey bi may liggéey tey nekkul lu ñu war a wax publiquement li may liggéey tey dafa am fu mu soqee ko gis nga sama soxna si nekk si kër gi ki ma ko may sama sëriñ daara la keroog ba ma demee ñu waxtaan ba ñu war ma koo may ñi ma naa leen mu ñëw tuuti ba ma demee dakaar laa am jafe-jafe loolu ma am jafe-jafe damaa dem Dakar tëdd sama balcon di nelaw mu am lu ma dikkal ne ma jabar moom doo ko am ba nga dee loolu amul lu mu ci ñàkkut ci alal pour ma dinañ dégg waxtaan bi du ma bàyyi ma fenn fu ma ko joxe a fu ma ko may dem na ci ñaari at ñaari at yoo xam ne mënuñoo fexe ba sëy bi am lu waraloon loolu xañ na dafa am ñoo dafa am ñoo xam ne dañoo bëggoon ñu jëflante ñu ne ma ñu wax dëgg yàlla ñu ni ma ndaw su rafet tegal ma ko ni kii lañ lay may loo bëgg ci alal ñu jox la loo bëgg ci xam-xam ñu jox la waaye du am beneen jabar ñàkk beneen jabar bi la moom si xawoon a jaaxal waaye bu fekkoon ne mënoon nañu ma bàyyi ma am beneen mu si xawoon a jaaxal ma topp ci di def si ay sarax di neexalante ñoom def ay sarax di neexalante ñoom ba yàlla dimbale ma ñu may ma am jabar waaye bañ ma may ma am jabar tamit am na lu ñu ma dénk na leer jinne jinne yi la wala doomu aadama gis bu ma ndax yenn saa yi xam ni ñoom laay seetal di gisuma leen bu ma leen seetalee dañuy waaru si yàlla te mu wax la benn affaire bu ma leen seetal du ma dara damay leen toog ba mu yàgg ma ne bu si kanamee ngeen woo wala dégg ma billaahi wallaahi bu si kanamee ngeen woo ma billaahi wallaahi tallaahi du ma laal dara su ma toog laay toog ne ko bu si kanamee nga woo ma barke yonentu yàlla Muhammad si kanam googu ma woowee ma wax li ma la bëgg wax yëpp bu ko defee ngay waaru si yàlla na waa kii kan la def ko ay nit ba naa ko ay nit lu ma xamante ni yëpp am na si benn koo xam ne kilifa la duwaañe la dañoo toog ma xoolal ko wax si jawaram loo xam ne tey rek woon na ma barke yonentu yàlla Muhammad tey rek woon na ma ba ma ko waxee loolu dafa tiit après la ma doog a leeral dama li wax de xamoon naa ko nangam expliqué nga wax te loolu yëpp mbiru mbiru dafa am loo xam ne xam liggéey dëgg ba nga ko mën a def faaw nga ànd ak ay jinne jinne ngay dimbalanteel ndax doomu aadama njaay xam-xamam dafa gaa dafa tuuti mën ngaa xam alxuraan mën ngaa xam kii waaye pour nga liggéey am li nga bëgg dëgg faaw nga am ay jinne yenn saa yi boo jaaxee rek yebal leen ñu dem dimbala ji la bu sori yenn saa yi mën nga leen yebal ñu dem fajal sa aajo te ñu bëgg na ko nag bëgg xam naa nag incha allah dinaa ko takk te bu ma ko takkee da ngeen xam ne takk naa ko <laughs> so yàlla macha allah sëriñ Adama Cissé xam-xam bi nga fi andi tey nekk na lu leer macha allah tey ñu ko dégg dañ ci jëlee lu bëree bëri laata ma lay bàyyi sëriñ Adama Cissé sa jëflante ak doomu aadama yi métti na wala méttiwut métti na méttiwut lu tax may la métti na méttiwut am na ñu neex a jëflanteel waaye am na ñu naqaree jëflanteel lu tax may la métti na métti am na ñoo xam ne dañuy ñëw bëgg nga ñaanal leen bëgg mu ñaan ngi ñaan sotti tey tey tey tey tey tey tey dañuy dem ba yaakaar ne sax yaa war a dogal am ñoo xam ne ñoom dinañ la topp ànd ak yow ànd ak yow ba bañ a gisee njëriñ te lu ñuy wax ñaan waame la yenn saa yi mën nga maa fekk moment yoo xam ne ma toog tey jii mën nga maa fekk mën naa toll foo xam ne boo ñëwee boo ñëwee ma ne la nangam bi dina am rek dina am def naa ko Dakar suur ba sama soxna si ceeb ginaar bu yox la togg mu fekkoon fa ay gan yu bari may leen añ bi tey jii ñu teg fii Grand Yoff woon ku ci lekk rek jàppale lépp lu lu nekkoon sa aajo rek jàppale faju na te ñi ma ko ba ma ko wax noonu ñu ci biti ba ma ko wax noonu fekkoon na fa juróom-ñaari nit ñaar ne na nga Amérique keneen ki ba mu fa jógee ko ci samedi ba dimanche altine la ko gouvernement bi woo jox ko cinquante millions ci ay oto oto ndox yi la yor te ay projet chantier yi ñu ko doon jox keneen ka këram la doon jaay pikin kër ga taxawut. mën naa la wax ne ña fa nekk ñëpp kenn ku ci nekk la ma waxoon ak yow moo tax ba léegi ñu ngi jëflante ñu ngi ñu ngi déggante ci boobu te te bu ma ko wax sax xaw ma lan moo ma ko waxloo damaa toog ñu añ ñoom yàgg mën a añ bi ku ci lekk rek jàpp ne lii plus aajo rek faju na lii ma maa leen ko wax fekk ñooñu amee ñu ngi lijjanti ba bëgg a dee seen yaa indi leen fa mun nañu fexe ba dem si weer boobu noonu lañ dem Amérique barki rasulullah si weer boobu lañ dem Amérique moo tax ñaan xaal la nit ki di nga toll foo xam ne di nga toll foo xam ne koo tëfli rek mu tooy li ñuy wax ne koo tëfli rek mu tooy loolu day am ci doomu aadama ñaar day toll foo xam ne foo ko tëf da ngay loo xam ne koo ko def ci moom rek dinañ xam ne am na koo def si moom moo tax ñu bari ñoo xam ne bañ commencé lii ba léegi lu ñu nekk nekk xale def mën na fukki at te ba léegi ñu ngi ànd ak si loolu ndax lu tax am na fu ñu jaar ak ñoom nañ ko suñ benn xale muy fubale mën a boo demee damm tey booy dem di damm mu dem laal bal rek tànk bi damu ñaar damu damu te ñooñu lu gën a garaaw laa lay wax ñooñu ñun ñooñu laa doon àndal di fo jërëjëf sëñ Adama Sy waxtaan bi am na solo trop euh, laata ma lay bàyyi maa ngi fàttaliku ne ñu ngi fii ci diwaanu Kaarang toog ak ki nga xamante ni sëriñ Adama Cissé la nekk borom xam-xam bu mag a mag a mag di faj ci wàllum euh, lépp loo xamante ni yéen a ko dégg mu ngi ciy faj ci wàllum euh, aada ak cosaan moom sëriñ Adama Cissé sëriñ Adama Cissé ma bëggoon a xam laata ma lay bàyyi depuis nga commencé faj ba léegi ñaata àll la. bu ma commencé faj ba léegi boobu amaguma soxna. yaakaar naa boo ko méngoo ak ren mooy fukki at ak benn fukki at ak benn yooyu yëpp chaque jour ñu ngi si sant yàlla di si gis avancement bu baax mosuñu si gis déllu ginnaaw te chaque jour ñi ñuy xamanteel ñu ngi gën a yokk ndax lu ñuy wax nit ki moom mooy def li tax nit ñi fonk ko ndax ba ñuy commencé lii kenn lañ xamoon te yéen yaakaar naa amul fu ñu ci àdduna wala amul ku ñu xamut ci àdduna faj bi yi ñuy faj ñii ci la ñuy ci la ñuy ñu dem Maroc li ñuy liggéey ci la ñuy daggalee bee ñu dem Maroc te kook daggal ñu bii ñu dem Maroc dig nañu ci yoonu màkk te gëm nañ ko kon loolu am noonu ñu koy sante yàlla xam ne yàgg na yàggut xale lañ waaye nag lu ci kanam yar nañu yàlla dimbale may ñu tal ak fekkee may ñu xel ñu ñëpp ñu bokk nekk fi ñu xool ci kanam bu ko defee mën naa gën a rafet bu baax ci kàttanu yàlla suñu borom. amiin yaare bi sëriñ Adama Cissé ñi nga xamante ñoo la déglu euh, suñu la bëggee jot ni ñu def ba jot la. waaw ñi nga xam ni ñoo ma déglu bu ma bëggee jot maa ngi ci fi ñuy wax kaarang poste si ginnaaw garage bi bu ma def fekkee dakaar la maa ngi nekk euh, cinéma unité 3 ci marché bi net cinéma unité 3 ci marché bi bu fekkee dakaar la maa ngi foofu bu fekkee euh, yeneen raison yi la moom awma benn place tey ma dal fii bu soo ma dal fii waaye bu ma fa nekkee boo ma wooyee rek dinaa la wax bërëb bu ma nekk fan la. est-ce que mën bi ba la soxla rek mun na woo. waaye loolu mën naa nekk euh, numéro téléphone ñu koy wax 77. 515 75 21 am na numéro bu ñuy wax 77 930 41 25 boo ko xoolee ci whatsapp bi di nga ko gis boo ko ba ma woowee di nga ma jot te chaque moo tax ñuy def loolu pour heure bu ñu bëggee jot jot ñu incha allah. suñ la soxlaa si whatsapp bi tamit numéro bi mën nañ ko am. mën ko am si whatsapp ku a jot si whatsapp mën nañ a ma jot man chaque jour rek ñu ngi koy taal nekk bitim réew heure bu nekk la ñuy jokkoo ñoom d' accord jërëjëf sëriñ Adama Cissé looy tàggatoo ak askan bu ñuy euh, seetaan via euh, suñu TV. di leen ñaanal jàmm di sakku ñu ñaanal ñu jàmm di leen yéene jàmm di sakku ñu yéene ñu jàmm di leen ñaanal mucc di sakku ñu yéene ñu mucc ndax ñu téye ñu am solo ndax doomu Adama Ndiaye dafa war a yërëm moromu doomu Adama Ndiayam ndax yàlla daf ñoo bind pour ñu yërëm pour ñu euh, taqoo kenn ku ci di yërëm sa morom. boo demee ba ci aaya bi nga xamante ne saar bi nga xam ne commencement saar bi nga xam ne moom la ñu moom la ñuy euh, tey bu ñuy xutba jabar dañ ko ci boole mu nekk yaa ayyuhaa naas ittaqu rabbakum lazi xalaqakum min nafsin waahida aaya boobu dafa taq euh, nit ki fu mu toll di sax euh, di saxoo yërmande ci xolom di taq yërmande ci xolom moo tax ñu def ko ci te tamit yàlla tamit bindu doomu aadama njaay pour muy nekk ci àdduna pour def li ko neex. moo tax boo demee ba ay am na aaya bu nekk ci tudd gi ñu ko afansitu moom ana maa xala naa ko xabasan wa annakum ilayna la turjaun suñu yàlla foofu ne da ngeen yaakaar ne ndax dama leen bind ci àdduna rek pour ngeen si def lu du loolu kon kenn ku nekk na taqoo ak ragal yàlla kenn ku si nekk na xam ne yàlla bindiwu ñu ñu wàcc ci bi pour di def ñu neex ndax àdduna bi yàlla daf ñu fi wàccee pour ñu jaam ko ndax kenn ku si nekk li ngay jaamu bu ëllëgee yow lañ koy fay kon nañ dimbalante suñu biir di yërëmante te kenn ku si nekk na fexe li muy wax na ko gëm si xolom ndax Sénégal lu ko tardeel moo ñu ñi dañuy wax lu leen neex rek waaye dañuy wax kenn ko ci gëmut yéene wante ñàkk yéene wante jàmm bi dafa lu tas famille yi mooy doomu bàyyi réero lu tas famille yi mooy jàppante fii lu tas famille yi mooy mooy yi fii nga jël deru jàmbur génne ko ci bitti wax ci lu ñaaw loo xam ne ñu si dal dee te leer na lu ngay wax wóorul la loolu nañ koy bàyyi xel bu baax nit yàlla da ko sagal nit yàlla da ko suturaal boo gisee nit du ko yàlla sagalee mooy xoolal mooy yàlla nu mu garaawee yàlla mu ne la yow mii mooy yàlla yow kenn kese boo ko gisee boo ko waxee yoon dóor na la juróom-ñetti fukki yar lim santaane mooy ñeent ñu màndu ñoo xam ne li ñu wax ñu gëm ko kenn ku si nekk jógee kii jógee penku kii jógee sow kii jógee bajax kii jógee bàjjee ngeen te ngeen tesee ci ku góor ke ku jigéen ki fekk leen ci kaw laal bi gis awraay ku góor ki dugg si awraay ku jigéen ki ngeen doogu am sañ-sañ ñu mot atte leen mooy yàlla ku ko gën a màndu yow jaamu yàlla bi nga gis nit koo xam dafa ànd ak nit di dem rek nga tuumaal ko loo xam ne nekkul te nga ne da ngay julli te boo jàkkaaroo yàlla ne ko iyaaka nax bu du iyaaka na saxin boo fa jógee def lu la neex nañu maytu loolu nañ dimbale suñu bopp te takkoog ragal yàlla ragal yàlla am na solo ci doomu aadama Njaay nañu rafetal suñu diggante nañu ñaanlante jàmm suñu suñu diggante ku ci gis sa morom na nga ko yéene jàmm ba bëggee jàmm ndax yàlla kat ku bëgg jàmm la ku bëgg doomu aadama Njaay la kon nañu dimbale suñu bopp ñun jaamu yàlla yi bu ñu demee bay taxaw ci kanam jumaa di julli wane ne julli lañ nañ dëggalool suñu biir xol nañ dëggalool suñu jëmm nañ dëggalool suñu xalaat bu ko defee léegi société bi dem dëkk bi lu tax mu jafe yëpp ñàkk ànd lu nekk ànd mooy kenn ku si kenn yéenewul sa morom jàmm fii wax a fi neex rek wax jee fi nekk rek waaye kenn yéenewul sa morom jàmm da ngay gis nit wax ci moom loo xam ne weñ wu si dal dee te li ngay wax wóorul la tego ci sa bët loolu foo ko teg kon nag na nañuy ñaan yàlla di dimbalante suñu bopp di sàngante sutura kenn ku si nekk bala ngaa wax sa morom dara na nga xam li ngay wax sa morom kenn ku si nekk ne fexe ba rafetal digganteem ak moromam bu ko defee lu mu yàgg dina ko jot lu mu sàkk dina ko jot li mu bëgg yàlla dina ko may si kàttanu yàlla suñu borom lu rek laay dénk sama bopp di ko dénk jaamu yàlla yi Euh, jërëjëf euh, Serigne euh, Adam Cissé wax ji rafet na macha allah mbokk yi lii moo nekkoon li nga xamante ni mënul leen andil si émission bu mag bu ñu duppee diine ak xam-xam ànduñ se Serigne Adama Cissé mu nekk boroom xam-xam bu mag fii si diwaanu Kaarang xam-xam sax dafa jéggi fi nga xamante ni moo nekk senegal da doon ay doomu aadama si bitim réew rawatina France Maroc Italie ak fu nekk si Sénégal Gambia fu nekk moom Adama si moom xam-xam ba yegg na fa mbokk yi ñu ngi koy jaajëfal bu baax baax ànd bu nga xamante ni tey may nañu ñu ànd ak moom si émission diine ak xam-xam bi euh, ànd seeg euh, la télévision suñu TV mbégte ak kontaanam bu baax a baax Adama Cissé moom nag ñu fàttali leen ne képp ku ko bëgg a jot rek mën nga ko woo si numéro yi ma lay jox 77 rek la 515 75 21 wala nga woo ko si numéro bi 77 930 41 25 mbokk yi am nañ mbégte ak kontaanam wóolu bu ngeen wóolu suñu TV di ànd ak moom saa yu nekk rek via internet di leen jox dig daje ba beneen yoon asalaamaaleykum wa rahmatullah